mbokk internet yi safoo setaan AGT news dalee nag jàmm ci xibaar Cheikh Tidiane Dieye àdduna ci li nga xam ne moo di nemmeeku tour bu Ousmane Sonko moom nag na mu qualifié Ousmane Sonko mooy que ne on n'arrête pas la mer ki avance avec ses kenn mënul tey géej ak say loxo loolee mooy kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati jamale ko ci Ousmane Sonko loolee nag ki ko moom ñëpp xam nañ ko c'est le président Macky Sall moom ak ay ñoñam ñi nga xam ne soxlawuñ lenn lu dul daal di faagaagal Ousmane Sonko ba nga xam ne dootul bokk ci langum politique gi waaye nag loo xam ne yàlla moo ko bëgg sabab ko loolee mënoo ci dara mooy kàddu yi nga xam ne Cheikh Tidiane Dièye daal dina koy yëkkati jagleel ko Ousmane Sonko nekkul ne Ousmane Sonko moo bëgg lu ni mel tout simplement tax muy am yàlla moo ko dooleel fal ko jiital ko kon képp koo xam ne rek bëgg ngaa nekk ci jàmm na nga accepteel Ousmane Sonko li ko yàlla may bu ko defee sénégalais yëpp mën cee jariñu mbokki internet yi safoo setaan AGT News abonné leen suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar yu